bismillah kon mbokk yi ñu ngi dellu ak yéen rek suñu jataayu fàttalante muy jàngale li nga xam ne mooy téere yi sëriñ Tuubaa mooy téere bi nga xam ne moom la ñuy wax mun na wiru sudóor mooy loo xam ne dafay leeral dënn te bañ ko waxee rek mooy xol mooy loo xam ne dana leeral xolub doomu aadama su ko defee insha allahu taala moom lañ bëgg a jàngat ak yéen bismillahi ci tudd turu yàlla la ñuy tàmbalee yàlla mi nga xam ne mooy rahmaan te itam mooy rahim sun boroom mi nga xam ne mooy rahmaan te itam mooy rahim yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko nee na lépp lu ab jullit di def rek bëgg ca barke na koy tàmbalee ji turu yàlla moo tax comme dañuy wax nag moo tax ñu ne ci li ñu tàmbalee suñuy wax yàlla moo mën nag mooy rahmaan mooy borom yërmande ji yaatu ji nga xam ne lawal na ko ci lépp lu mu bind rahim mooy boroom jéggal li nga xam ne digg na ko ñu gëm yàlla te dana leen ko jox ëllëg ñu wa kaana bil muminina rahiman suñ matadi gi ñuy yóbbee bàkkaar yu bari yoo xam ne buñ ci toppee lakk ñu ah dana joggi ci rahim rek jéggal ñu ko ëllëg ngir ñu mën am saada wa salla yàlla dool tedd nga allahu yàlla yàlla moom mu nga xam ne taala ko kawe la moom la wax ne yàlla na dool tedd nga ala sayidina ci suñu sang muy ki ñu gën ñun ñëpp wa mawlaana tey suñu kilifa kooku nag turam muhammadin mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi nee na yàlla yàlla na doolu tedd nga ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaan gi nag la wax ne wa alihi ak ay ñoñam mooy mbokki boppam yi mbokkal deret te ñu gëm ko boole ci wa sahbihi mooy ay sahabaam yi nga xam ne ñoom la àndaloon di taxawal lislaam wa sallama te dolli ko ak musal mu ne wa baraka yàlla na barkeel salaatam dollik taral wa wa tasliman ak dollik musal wa barakatan ak barke boo xam ne itam yajaalu dana defe bihaa ci saw su barke boobu hada nawm bi le way muy téere bi muqaddamatan min muqaddamatil janna muy lu ñu jiit jiita yee jiitu ca aljanna allati aljana ña nga xam ne waida dig ne digeef na ko mooy digg nañu ko almuttaquna ñi nga xam ne ragal nañu yàlla ñeneen ñi ngi ñaan rek yàlla mu def ci téere bi barke boo xam ne sama bés barke boobee téere bi dana ci bokk ci yi jiitu ci aljanna léeg sax nga dégg sëriñ bi ci mbindam mu bind xasida wax ne xasidaam googu xuurul ayn ya nekk aljanna dañ koy woyantoo kon mbindam moom dana jéggi fii ñu ne mbindam day dem ba biir aljanna insha allahu taala nee na nag aljana ya nga xam ne ñi ngi ko dikk almuttaqoon ñi nga xam ne ragal nañ yàlla muttaqoon nag bu ko waxee jubluwu ci rek ragalu xawf goo xam ne da nit ki dafa ragal mbugalum suñu borom loolu bu ñu ko waxee mooy xawf waaye ragal yàlla gim jibli ci mu muttaqun ji muy wax mooy ñi nga xam ne wekk nañ seen borom subhanahu wa la ndax taqwallahi mooy wekk yàlla rek mu wegeelu jox ko cër ba su diglee rek nga xam ki digle mooy kan ci sañ laa digal ba tax nga jëfe la mu digle bu teree itam nga xam ki tere moom mooy kan ci sañ laa tere ba tax nga mën a bàyyi la mu tere kon taqwallahi mooy jox yàlla cër loolu nag toujours ñuy wax ne képp ku ko jëflantewut ak sa borom it ngi koy jëflante koo xam ne ab jaam la ne yow kenn ku ne rek ñaare da nga am koo xam ne day am fu mu la toll ba bu waxee rek nga ne daal di song la mu joxoñ bëgg nag loolu nga jiital ci sa borom lépp lu mu digle nga def ko ngir jëmmam lépp lu ma tere itam nga bàyyi ko ngir jëmmam loolu mooy taqwallaahi mu ne amin yàlla na yàlla nangu ñaan yaa rabbal alamin yow mi borom bindee fi وتعمل نك وخنا قال لوجه الله عبد الله خديم من اوصله لله وذاك احمد الذي لا يرتجي الا الذي جاء بفتح المرتجي قال وخنا كي وخ موي كيغا خامني موي عبد الله تيتم دا وخ رك لوجه الله غير جيم يالا نينا جام في يالا موي وخ تي يالا رك تخ موي وخ كوكو نك باتاي xadimu man mooy liggéeyal yonente bi nga xam ne aw salahu moo ko eggale lillahi ci yàlla jaamu bi yàlla mooy wax ngir yàlla di ki nga xam ne itam xaadimu rasul la mooy liggéeykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di yonente boobu nga xam ne nee na moo ko eggale ci boroomam te loolu leeral na ci faneen ci mbindam wax na ne bi mu jógee jëm ci boroomam boroomam moo ko joxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam wan ko ne moom mooy buntam mu wëlbati ko jaar ci yonent bi yonent bi wommat ko ba tàbbeeg moom ci ëttub suñ borom subhanahu wa taala mooy dallani allahu ala muhammadin wa xaadani muhammadin lissamadi waxaat na ko ci beneen terme ne dallani allahu ala xayril wara wa xaadani xayril wara mooy yàlla tegtal na ma ki gën ci mbindeef yi kookee gën ci mbindeef yi nag woo ma yóbbu ma ci yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi moo tax mu ne mi ngi wax te yàlla rek tax muy wax daal di xamle boppam daal ne moom mooy abdullahi jaamu bi yàlla jaamu yàlla buñ ko waxee li muy tekk mooy ki nga xam ne xam na ne yàlla moom moo ko bind te itam moo ko moom mu taxaw ci jëfe lépp luy ay ndigalam ak mooy ci lépp luy ay tereem daal di wanewaat boppam ci ne noonu mu nekk abdullahi it di la nekk xaadimu rasul di la nekk liggéeykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne liggéeyal na ko ci sunnaam liggéeyal ko ci diine ji ko yàlla joxoon liggéeyal ko tam ci ay madaay muy tagg jëme ci moom ak ay salawaat yu bari yum def jëme ci moom lil Moustapha lawaytuma yu jaddidu sunnatu al gharra wa ahmadu nga xam ne loolu moom ñi ko xam xam nañ ne def na ko bu baax a baax ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tagg ko ak julli ci moom ak tam yeesalaat sunnaam ak sampaat diine lislaam bi nga xam ne moom la fi indi woon wa kooku nag ahmadu mooy ahmadu bamba nee ki wax nii mooy ahmadu bamba allazi mooy ki nga xam ne laa yarta ji du yaakaar illa allazi ndare yàlla mi nga xam ne jaada tabe na mooy may na bi fatxil murtaji ci ubbi la ñu tëjoon nee na kooku nag xañ na ngeen nga gën koo xam mooy ahmadu bamba di jaamu yàlla boo xam ne nee na kenn ku dul yàlla wala lenn lu dul yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu delloosi la ñu yaakaaroon bi fatxil murtaji mooy ci ubbi la ñu yaakaaroon mu yërmande suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi sant daal yàlla mi nga xam ne moo ubbiwaat yërmandeem ci kaw suuf la te la ci gën a yéeme mooy ba yàlla ubbiwaat buntu yërmandeem ci kaw suuf moom ci jëmmam ji la ko jaarale. moom mi la suñu borom def muy maanaam acteur bi nga xam ne moom la indiwaat ci jamono mu yeesalaat lislaam bu baax a baax fii ci sowu jant. mu ne alhamdu mbooleem xeeti cant yëpp rek lillahi aji nekk la ñeel yàlla allazi yàlla mi nga xam ne jaala moo def asadra dënn asadra mooy dënn te fekk xol la ci jublu yéen cant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo def xol ci boppam nekk di matt bool awsaali lu ñu toppi ciri jaam bi matt bool awsaali al ibaadi di lu ñu toppi ciri jaam bi fan jaala te mu defu mooy def na ko te itam nekk na nee na cant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo def xol di loo xam ne cër yëpp moom la ñu topp nga xam ne doomu aadama fu xolam jéng jëm rek jëmmam daal dafay fay jëm lépp lu lu lu rot ci xelam mu xalaat ko ba bëgg ko ci xolam rek faw ay cëram dañuy jëfal loola moo tax dana ko wax ci biir téere bi sax di misaal ne xol dafa mel ni ab buur ci cër yi al qalbu kal maliki fil kon nee yàlla moo def xol daal cër yëpp rek daal di koy nangu daal di koy topp ba fu mu xol jëm rek cër yi daal di fay jëm loolu nag dana dugg ci li ñuy wax baraaxatul matlaq nga xam ne day tàmbale rek ci biir ni mu tàmbalee daal ci wane ne joxoñu fa mu jëm nga xam ne waxin woowu day tegtale ne téere bi dafa jëm ci jàngat xolu doomu aadama ak itam lan moo ko mën a tëskiye ba tàqale ko rasail ya ca mën a ne mm-hmm. mu ne subhanahu mi ngi koy bàkk mi ngi bàkk boromam rabban mbir mu di buur boo xam ne daa woote na di diine man jëme ci diine yi ki nga xam ne lëxoo ñeel na ko ab asiyaadatu càng ga allati ka nga xam ne fii xaa nekk na ci muy sécurité ne mi ngi bàkk yàlla mi nga xam ne moo woo ñëpp jëme leen ci diine yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonentem boobu nga xam ne mooy sangu sang yëpp te ni ko yàlla def muy ab sang nag yàlla sécuriser ko ba nga xam ne du loolu du dañ mukk du koo xam ne dafa nekkub sang tey ëllëg keneen di nekkub sangam dañoo gën ñun ñépp te lool di nekk ba faw di suñu sang ñun ñëpp te lool di nekk ba faw mooy allati fiha am al am loo xam ne dafay doon rek ëllëg mu ñàkk ko doon mooy sangu ñu ko jiitu woon ak ñi ko mujj ñëpp rek nan la yàlla wootee jëme ci diine yonent bi mooy suñu borom dafa jëmmal diine lislaam wane ne moom la reconnaître moom la nangu te jeneen diine jeneen diine ju moom tànn ko nangu ko te ko ko topp ëllëg doo am pay suñ borom moo ne inna diina inda allahi islam diina ji ñu tànn fa suñ borom subhanahu wa taala mooy diine l'islam yàlla wax ne wa man yabtaxi ghayra islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil axirati képp jàpp sax yeneen diine ju dul diine l'islam nee na duñu ko nangu te tam bu ëllëgee du am pay moo tax day perte rek kon suñ borom moo jëmmal diine l'islam woo jaam ñëpp ngir ñu jëm ci moo tax ma ne yàlla mi nga xam ne daa li diini man daa moo woote li diini man jëmee ci diine ki nga xam ne laxoo ñeen na ko ak siyaadatu càng allati càng goo nga xam ne fii xa nekk na ci al am na kóolute ba tey rek subhanahu mi ngi koy dollee bàkk moom yàlla wuhu moom yàlla mi nga xam ne dul arsh mooy borom aras al majid ji aj ju tedd ji aras mi nga xam ne dafa tedd dafa màgg dafa kawe dafa yëkkatiku mm-hmm. nee na mi ngi bàkk yàlla mi nga xam ne moo ko moom moo ko bind moo ko sàkk yàlla moom al mubdiu mooy ki fent mbindeef yépp jële leen ci ñàkk andi leen ci am waaye itam al muidu mooy ki leen di delloowaat ci ñàkk ñoom ñëpp itam kon al mubdiul muid mooy yàlla mi nga xam ne moo amal jaam ñi mooy ki leen jëlewaat suñu borom moo sàkk mbindeef yépp te itam moom rek mooy ki leen fiy jëlewaat su ko moom yàlla moomu nag yejuudu dana tabe mooy buur bu tabe la bu baax bu bari yërmande ak i may soo ko xamul man mooy yàlla mi nga xam ne xalaqa moo bind al insu nit wal jinne ak jinne maan boole seen mooy yàlla mi nga xam ne moo bind nit ak jinne te itam nee daf leen di bind rek li yaabuduhu ngir ñu jaamu ko rahaban wa tamaan rahaban mooy ñu jaamu yàlla ngir ragal sawaraam waaye ñu jaamu ko tamaan ngir xemmim aljannaam moo bind nit ak ginne ngir ñu jaamu ko wax na ko ci alquran wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun bindu nit ak ginne lu dul ñu jaamu ko jaamu googu doomu aadama yi jaamu yàlla nag nit dana ko jaamu ngir ragal sawaraam dana ko jaamu ngir bëgg aljannaam waaye nag ñu ëpp daraja dëgg-dëgg mooy ñuy jaamu yàlla ngir yàlla ñuy jaamu yàlla rek ngir yàlla xam ne sawara jaam la boo xam ne sañu leen a lakk mukk ci lu dul ndigalul yàlla xam ne aljanna jaam la boo xam ne sañu leen a teral mukk ci lu dul ndigalul yàlla nga xam ne ñoom amuñ soxla ci aljanna amuñ soxla ci sawara ndax xam na ñoom dañ leen di jëfloo rek ñu wëlbatiku bëgg nag yàlla mi nga xam ne moo bind sawara bind aljanna te sawara ak aljanna di dox ci coobareem nga xam ne seen borom boobu lañu bëgg te dañ koy jaamu rek li xubbi zaati yi ngir bëgg jëmi suñu borom subhanahu wa taala ñooy ñooy ñi gën a kawe daraja tiw nag nit dana ko jaamu ngir bëgg aljana ndax dafa digge aljana ci jaamu ko nit dana ko jaamu it ngir ragal sawara ndax dafa digg nit mën naa mucc ci sawara ci bu mooyee ay tere bu bu mottandi ko ay tere su ma salaat topp dolli teral wasalaamu ak dolli musal yàlla bu ma dañ mukk di nekk ci ala ci yonente bi azahid damaa ñëw ci bind wi ci suuf nga bàyyi ko xel su ma salaatu topp dolli teral wasalaamu ak musal nee na ala rasuli yàlla nay nekk ci ndawal yàlla loolu azzahidi ki aji dëddu àddina almushafaa ka di ko ñu rambloo murshid man tay aji jubal képp koo xam ne yuhibbuhu doona ko bëgg lil anfaa jëmee ko ci aji jariñ ji muy sun borom subhanahu wa mu ne sun borom subhanahu wa taala ba mu dañ mukk rek ci di def salaatu wa bii jëmee ci yenente bi nga xam ne zahid la mooy ku dëddu àddina la jiblu boromam mooy ki nga xam ne mooy ramu ëllëg te mooy jubal képp koo xam ne soob na yàlla jëmee ko ci yàlla mi nga xam ne moom rek moo amee njariñ salaatu wasalaam googu na lay wax ne ba mu dañ mukk ci di nekk ci yonent bi maa jala ba li fee ñodd na moom yàlla liyee ci man almana xéwali man yàlla mi nga xam ne salaba rikki na liy ci man almanafia njariñ yi yàlla mi nga xam ne lépp luy njariñ rek ñoddil na ko indi ci man ba dañ ci di ñoddee noonu lépp luy xéewal andi ci man li feeg looloo ngi am nag bu salaatu wasalaam googu dañ di nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw waxin la woo xam ne day nuru lu naqaree xam te fekk sax naqariwut a xam dafa julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek ni julli googu ma julli ci yonent bi nag ba mu dañ mukk di nekk ci yonent bi li feeg yàlla mu ngi saxoog ni mu nekkee man rek ndax rekki na indil ma lépp lu njariñ te itam kon la may rékkile noonu lépp luy xewal di ko andi ci man li fekk salaatu googu mu ngi sax ci yonente bi mhm. mu ne ala lazi yàlla nekk ca ka nga xam ne jaa dikke na jaa dikke nañ jibli mooy yàlla nekk ci yonente bi nga xam ne moo ñu indil xadis xadis boo xam ne daf caa wax ne bi anna dunya zijnun li muminin bi xayri sunya moo tax ma ne alal lazi yàlla dolli nekk ci ki nga xam ne jaa dikki nañu bil xadis ci xadis ba maanaam moo ñu dikkee wax ne adduniyaa zijnu muminin wa mooy kosob ab jullit ba noppi nekk aljana ab yéefar kooku sayyidina mooy suñu sang muhammadin mooy muhammad lan la wax ne yàlla na nekk ca moom mooy salaata man dooli terlu yàlla mi nga xam ne xadd fakka xob bi na sijni sama jéng bi safayin ànd ak sell wa am nin ak kóolute ba tey salaatu wasalaam la defaat daane xalal lazi yàlla doon lay nekk ci ka nga xam ne jaa a dikke ñu ci wax nga wax ne bi ànd dunyaa naka àdduna si junun ko solo li muuminin yéen aji gëm bi xayri yaa ci ludul ay nar xadis ba nag romb na loolu da caa teg na wa jannatul kaafir te nekk aljana yéefar li mu wax ne yàlla doon lay nekk ci moom nag mooy salaatam ndax ne na koo xee mooy suñu sang daal lam ne yàlla doole nekk ci nag mooy salaatam doolig teral salaata man doolig teralu yàlla li nga xam ne man ji boroom la ci jiblu yàlla mi nga xam ne xadd fakk xobbi la sij nii sama jéem di wax ci mawaahibu mawaahibu naafix ne xadd xadd fakk kablaa moom mhm. yàlla mi moo moo dindi sama jéem mooy tàqale na maag adduna ak bànneex ak seytaane ak yëpp ba dara téyu mu am benn gàllankoor mhm. damaa jóg rek jëm ci sama borom bi safaayin ànd ko sell wa am na ak kóolute muy sécurité waaw yonent bi nee àdduna tey moom kosob jullit la te itam aljana yi ab yéefar la loolu nag ni ñu koy tekkee mooy ab jullit dafa nekk ci kaw suuf bëtam di tege ci lu bari lu mu bëgg ah noppam di dégg lu bari lu ko lu mu war a bëgg te yu lu bari ca loolee ñu tere ko ko nga xam ne nekk na ci kaw suuf waaye suñun lu ko soob ci lépp lu mën a doon leen lu mu doon rek daa am lu mu ci sañ am lu mu ci sañul nga xam ne lu bari ci kaw suuf rek fi mu ne sañu koo def sañu ko wax sañu koo jëf nga xam ne daa am lu mu sañ lu mu sañut loolu moo tax mu mel ni ko nekk ci kosu yéefar bi nag bi mu ñàkkee gëm yàlla moom daa sañal boppam lépp moom gisul lenn loo xam ne jàpp na ne loo xam ne dañ ko ko war a tere la ndax gëmul yàlla moom gis na ne lu ko neex rek def lu ko neex wax fu ko neex jëm liberté boobu mu mel ni ku ko am ci kaw suuf moo tax mu misaal mel ne ko ndaa laa nekk ci aljanaam mm-hmm. jullit bi nag nekk gi nekk ci kaw suuf suñut lépp am lum sañ ak lum suñut moo tax mu mel ne ko xaw a xat ba mel ni ku nekk ci ab kaso buñ tëj loolu mooy misaalum àdduna kaso ab jullit la di aljana yi ab yéefar mm-hmm. mu ne hada jàppal lii mu ne yëgal ne wa xayrul ilmi ngën gi xam-xam yaa zawil uquli yéen boroom xel yi nee na xam-xam la ca gën ilmun mooy xam-xam boo xam ne muqarribun aji jegeñal la mooy daf lay jegeel liman ñeel yàlla mi nga xam ne minhu tukkee na ci moom an nuqulu tuxal ya nee xam-xam bi gën ci xam-xam yi mooy xam-xam bu lay jegeel sa borom subhanahu wa taala daal di nag indi misaal ca xam-xam yooyu daanaka la aq di ndiki xam-xamu aqida mooy xam-xamu tawxid xam-xam bi sellal sa pas-pas xam-xam bii tax nga mën a jàppe sa boroom na ko war a jàppe te loolu mooy ilmu tawxid la ci topp mooy alfiqhi mooy xam-xamu fiq bii tax nga mën a xam ndax nga war a toppe sa borom ba noppi toppe ko noonee bakat tasawuf yi ak ndiki mu tasawuf mooy xam-xam bi lay xamal sellal jàngal la ni ngi war a jëflanteeg sa borom ba looy jëfati yàlla rek tax hmm. nee na xam-xam moo gën ci lépp lu mën a doon ndax mooy jegal jambi bi boromam waaye nag bu duggee ci biir xam-xam nag la gën ci xam-xam mooy xam-xam bu mel ne xam-xam bu lay taxaw na wiital sa borom muy ilmu tawxiid ak xam-xam bu lay mën a tax a jëfe ndigali yàlla yi muy fiq ak xam-xam bu ñuy wax tasawuf nga xam ne mooy tax nga mën a sellal loolu mooy iman islam ihsan rek wa kulli ilmin ak bépp xam-xam nag boo xam ne rek yëfi yi dana dikk bi mën a fexe ànd ci njëriñ ak beneen xam-xam bu am njëriñ ba ci jullit rek ci xam-xam yi baax ci la bokk